maa ngi leen waaw xanaa di ko rafetlu ndax dama jàpp ne eh, dañu nekk ay doomu doomu réew mi doomu Sénégal doomu Sénégal yoo xam ne eh, dañu am liberté eh, liberté boobu dañ ko donn ci yoon boo xam ne sunu ay waajur sunu ay maam ñoo ko tabax. muy li toog naan une trajectoire politique boo xam ne li ka jalonné maanaam la nga xam ne moo ko tënk mooy ay bërëb ay jamono yoo xam ne réew mi dafa dajaloo waxtaane ko togge ko sotti ko te yaakaar naa bi ci gën a siiw mbaa yi ci gën a bokk na ci gën a siiw muy 1992 1993 moo ñu may le code consensuel bi waral Sénégal am tey lu mat ñeenti alternance kon dama jàpp ne bu ñu nekkee ci réew moo xam ne toll nañu ba la nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax processus électoral bi mënatu ko mënatu tee tënku ndax bu conseil constitutionnel ne nit warul am lu ëpp euh, ñaari euh, nationalité bu fekkee kooku dafa mën a jàll ci processus électoral loolu lu muy firi mooy processus électoral bu war nañ kaa euh, jubantewaat bu ñu xoolee dem ba ay parrainage ñu mën ko def ci anam ya nga xam ne moom la ñëpp xam tey ci réew mi yaakaar naa ku nekk xam ne ne loolu war nañ kaa jubantewaat donc loolu nag waxtaan la waxtaan ba juboo moo tax euh, ñu teew fi tey teew fi également ci turu collectif boo xam ne lu mat ñeent fukki candidat weesu na ko ñu waxtaan ci pour que ku nekk indi sa xalaat indi sa ay proposition pour njëriñu askanu Sénégal mu njëriñu Sénégal njëriñu réew mi di fàttali ni aussi ne Sénégal kenn moom ko Sénégal c'est un pays de liberté c'est un pays de droit chaque Sénégalais bu nekk am nga sa sañ-sañ la nga xam moom nga gëm nga topp ci yoon boobu te euh, dara du la ci fekk kon jàpp naa ne tey dafa nekk bés boo xam ne bu ñu xoolee réew yi ñu wër te li ngeen indi seen jafe-jafe yëpp ay processus électoral yoo xam ne yu jubul la yaakaar naa wala ñu jël responsabilité ci loolu tënk loo xam ne ëllëg fii ak 50 ans Sénégal dootu amati problème électoral problème démocratique. tey ci suba njiitu réew mi dalal na leen ngeen sikk waxtaan ndax mën nga ñu wax rek li ñu mën a jàpp ci waxtaan boobu. Ah, yéen tamit waxtaan ak njiitu réew ngeen bëgg xam ne la fa nekk mais li am solo rek mooy la nga xam waxtaanoon nañ ko ak moom euh, ca mois de janvier. muy dysfonctionnement ya nga xam ne ràññe woon nañu ko ci processus électoral ndax boo jëlee lu mat euh, ñeent fukki candidat ku nekk euh, indi juróom fukki euh, junniy parrainage loolu ñaari million gu sénégalais yi pare parrainé ñoom la ñu nar xañ seen àq seen yelleef or Sénégal c'est un pays de droit képp koo xam ne nag sa àq ak sa yelleef laal nañ ko am nga sañ-sañ sol sa dàll takk sa ndig dem dox ko te yaakaar naa ci loolu la ñu nekkoon tey te loolu aussi moom la ñu nekk ëllëg moom la ñu nekk également gannaaw ëllëg te euh, mooy la war a am dans un état de droit état de droit mooy bu sëy droit buñ ko euh, salfañee da nga war a taxaw war a dox pour safara ko. naka nga gisee nag li fukk ak juróom-benn candidat candidat yi ne ñoom du ñu teew. waaw loolu seen liberté la wax dëgg yàlla du awma ci ko benn commentaire. ñu jaajëfal ko mu nekkoon rek